alors Mohamed Almiou mangi ngi lay gërëm euh, di nuyu euh, ñi ñuy déglu ci Sénégal ak ci bitim réew euh, di wax ni gis nañ ni démb ak léegi en tout cas ci ngoor ñu démb ak ci tuuti ci guddi gi am na ay manifestation yoo xamante ni am na li ci ëpp lu ñu ràññeeku fii ci Ndakaaru ak tuuti fële ca région wu Thiès bu ñu xayma gis nañ ni ay nit dañuy génn Euh, taal ay pneu daw wala ñu dem ci këru nit euh, jéem fa yàq dara wala ñu jéem a taal ay otoom wala sax ñu jéem a sànni ay xeer ci biir kër gi loolu muy loo xamante ne du ñu ñaawlu la te ci état de droit loolu warul am te loolu mënul am te lépp loo xamante ni état bi war na ko jël kom jumtukaay ngir mën a takkal loolu ak def liggéeyam ni mu waree dina ko def am loo xamante ni tamit seetlu nañ ko depuis euh, deux mille dix-neuf ba jàpp sax deux mille vingt et un mooy xew-xewu politique wala xew xew coow ci ay ñu bokkul langue saa yu juddoo dañuy gis ni dafa am ñu fare ci benn wàll bi di woote ak di joxe ay adresse su kër nit ni dem leen taal ko wala dem leen yàq li fa nekk loolu ñu koy ñaawlu te warul am waaye gis nañ tamit ni démb bi ñu attaqué këru yenn ci membre gouvernement bi ak yenn ci membre majorité bi gis nañ ci guddi gi ni am nay membre opposition yoo xamante ni tamit attaqué nañ seen kër réew du doxee noonu réew ni muy doxee mooy dafa am police am gendarmerie am tribunal ñooñu la yoon dénk bu fekkente ni ñaar ñu bokk ci dëkk bi bokk ci réew mi euh, am nañ lu dox seen diggante ñu dem ñu atte leen foofu waaye su fekkente ni nit day jug tooñ ka mu tooñ jàpp ni dafa war a fayul boppam dem song ko bu ci nekk dama koy ñaawlu ndaxte loolu looy du mooy li nga xamante ni moo ñu boole ci pénc mi te du mooy li nga xamante ni moo ñu war a euh, euh, boole ngir ñu mën a wéyal suñuy dund ak suñu aada liñ ñu ko xamee fii ci senegal loolu nag lépp li ci war ci matuwaay état dina ko jël te may woo nit ñi muy ñi bokkee ci majorité bi waaye tamit ñi faree ci kujje gi ñu ànd ak dal xel yi euh, dellusiwaat ñu xam ni Sénégal. ku yëkkati sa loxo bala ngay door wal nga xaj ndaxte boo moytooy ki nga door yaa koy seeti wala yaa koy faji ndax benn bopp lañ kenn mënuñu xar ñaar. Mhm. moo tax may wax ni majorité bi comme opposition bi kenn jug dem di tal kër kenn wala ngay jóg di yéene sa morom safaan loolu mooy li nga xamante ni bëggoon naa ko ci indi ci ay leeral. di wax mhm. tamit euh, kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk ci kër yi di leen woo di leen wax ni nañu artu waxaat ak njaboot gi. ngir téye leen ci kër gi ndaxte loole ñuy def euh, ni ko yoon daanee nekk na ay daan yu méttee méttee méttee métti ndax ku jóg di xupp nit wala nga koy jéem a tiital wala nga yaakaar ni boo indee fitna dafa am loo xamante ni gouvernement bi du ko def wala état bi du ko def wala sax am na yeneen banqaas yoo xamante ni ci état la bokk waaye du gouvernement di yoon du ko def loolu yoon mi ngi koy dëppalee ak baat boobu nga xamante ni buñ ko jibalee nit ñu bëri addu mel ni dañ ciy wax wax ju bëri waaye tey laa ko gën a saxal tey laa ko gën a dëggal ndax noonu la ko loi bi waxee acte terroriste la te acte terroriste nag kenn mënu koo nangu wala ñu koy seetaan ci biir réew loolu moo waral maa ngi woowaat euh, way yi di woowaat jàngalekat yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir école yi di leen wax nañu téye njaboot yi te bañ leen a bàyyi ay nit di dugal ci seen xel lu dëppoowul ak dëgg ba ñuy génn ci mbedd mi di yàq te ay daan wala ay gaañu gaañu mën leen cee fekk. fan ngeen te gaañu sax mooy li nga xamante ni moom lañ ci gën a mun a euh, naqarlu waaye moom tamit ñaanuñu ko yàlla bugguñu mu dal kenn. monsieur le ministre fan ngeen toll ci arrestation yi. alors ci arrestation yi Mouhamadou Alimou euh, depuis démb euh, yoon am na lu mu activé police ak gendarmerie ñu ngi ci terrain bi depuis démb ci Dakar ak ci région yi. am na ay arrestation yu bëri te arrestation yi am yëpp ay nit la yoo xamante ni ñoo doon woote ngir euh, attaque ay këru jàmbur wala ñoo xamante ni sax ñoom ci seen bopp ñu ngi woon ci terrain bi di attaqué ay këru jàmbur am na ci ñoo xam ne fekkee nañ leen ak ngànnaay am na ci ñoo xam ne fekkee nañ leen ak cocktail molotov am na ay kër yoo xamante ni sax dugg nañ fa fekk ñoo xamante ni dañ doon defar ay cocktail molotov jël nañ ko ba fii may waxee ak yow tamit ñu ngi nekk ci terrain bi di liggéey police ak gendarmerie ak seen unité spécialisée yëpp du ñu toog noppaliku mukk ndega ndare liggéey bi nga xamante ni ñu ngi ci nekk nii jeexul incha allahu rabbi mhm. euh, ci ci loolu euh, am nañu ne euh, li ko waral mooy blocus këru Ousmane Sonko bi jaarul yoon amul benn kayit bi koy firndeel lan ngay wax ci loolu. waaw xam nga Mohamed Alioune dañu nekk dans un état de droit ku nekk am nga ak ku nekk am nga warugar sa warugar bu fekkente ni defuloo ko. sa àq da ngay euh, mal placé pour di ko demander te sa àq duñu ñu doo ko mën a yëkkati euh, di laaj ñu sàmmal la ko lu dul ni da ngaa jiitoo lépp li la war nga nekk ca waaye ku nekkul ca la la war bëgg ñu defal la la nga xamante ni moom la yoon sàmmonteeg yow dina xaw a doy war foofu tuuti li ma jubloo wax ci wax ji lii rek la lu yomb la compliqué wul c'est-à-dire euh, que ce soit le leader du PASTEF ou un autre citoyen, nous sommes tous, comme nous l'avons dit, d'égale dignité devant les lois de la République. Ci kanamu yoon ku nekk ci ñun am nga ay àq ku ci ñun am nga ay warugar ak warugar état bi daf ko war a encadrer état bi dafa war a respecter lépp amul kenn koo xamante ni war nañu jug tooñ ko ak noo mënti tudd foo mënti bokk ak foo mënti ko état warul la tooñ loolu mooy état de droit waaye tamit yow citoyen bi foo mënti bokk koo mënti tudd ak koo mënti doon waruloo tooñ loolu mooy li ñuy wooyee donc état de droit ci ñaari keno yooyu la tënk léegi nag pour revenir si sa question bi ngay tudd léegi muy li nga tuddee blocus tëddu ko yoon ni muy doxee mooy bu ñu gisee ni am na loo xamante ni mun na jur euh, safaan mën na indi ay jëye ci réew bépp matuwaay boo xamante ni war nañ koo jël ba loolu bañ a am dinañ ko def te dégg ngeen deux mille dix neuf ak léegi RFM ñii euh, échappé wul woon ci loolu RFM rëccul woon ci loolu deux mille dix neuf ak léegi gis nañ benn xeetu discours bu duggu Sénégal boo xamante ni xamuñu ko woon lu am rek wala lu xew rek ñu ni dem leen taal kër diw lu am wala lu xew rek ñu ni dem leen yàq rajo sangam lu am wala lu xew rek ñu ni dem leen euh, yàq euh, bërëbu liggéeyukaay sangam

waaw xam nga Sénégal ñun ñoo ko bokk benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar euh, amul kenn ku nekk ci Sénégal daanaka te amoo mbokk bitim réew ñu nekk ay jàmbaar yuy liggéey fa ñu nekk di daan seen doole di ko yónnee ci askan wii ñu nekk Sénégal di ko bokk ak ñoom amul kenn rek laa wax koo xamante ni daanaka mi ngi yeewoo Sénégal te amul mbokk bitim réew ñi nekk bitim réew ni seen xalaat nekk ay sénégalais ni seen xalaat wuutee ci doxalinu réew mi ak ci politique noonu lañ ñu nekk bitim biir réew mi seen xalaat wuutee ci doxalinu biir réew mi ak ni ñuy euh, gisee ci ni réew mi mel mais ku nekk am nga droit am xalaat bu la neex ku nekk am nga droit far fu la neex waaye xalaat yooyu ak far yooyu wuutewul ni da ngay woote ci noonoo euh, tekkiwul ni da ngay woote ci ñu yàq ñi nekk foofu nag dañoo jàpp ni amul benn yoon bu ñu mën a jaar ñi ci ñiy yàq laa wax may nuyu ñëpp nag maa ngi nuyu ñiy yàq ñi yàqul ndax loolu mooy suma warugar mais damay wax ni amul kenn koo xamante ni yaa ngi bitim réew tey di woote ngir yàq wala ngay jox adresse nit wala ngay yónnee xaalis pour di wax ni jënd leen essence taal leen def leen ni yàq leen te gouvernement bi du jël matuwaay ngir dëkk ba nga nekk ñu yónnee fa ay bataaxal ngir demander leen ni ñooñu nekk ca réew yooyu li ñuy def di yàq fii ci biir réew mi ñu top leen ci réew ya ñu nekk loolu mooy li nga xamante ni bëggoon naa ko wax euh, ci euh, poñ boobu nga lakk léegi. Mhm. merci beaucoup monsieur le ministre. <laughs> merci merci Mohamed Alimou. jërëjëf merci jërëjëf merci. au revoir.